wala lu kenn defut ndax lu waay def jëme ko ci sëriñ bi sa bopp nga ko defal ndax sëñ moom ko amuk fay la te kenn ku ci xam ne ne doo xaare kenn ëllëg lu ko waay jëfal fii ci àdduna la koy fay jëf ji ba napp nag dencal la nag yëfi boppam ya nga xam ne ak jagleel la bukk ko suñ borom jagleel ngir ëllëg loolu nag ñu leen koy fàttaliwaat ñoo xam ne lii tax barab bi mel ni ko borom bëggee jamono ju ne mi gën a taaru ba boo fi duggee mel ne dañuy soog dañ ciy soog a noppi loola daa am taxawaay bi tax loolee mën a am taxawaay boobee nag lay tax mu mën a am te sax te wëy mooy murit yépp àndandoo bokk genn yitte ak genn bëgg jëme ko ci barab bi te Sëñ Tuubaa rekk tax ndax murid yi moom li fekk àddina ngi fi duñ fi jóg mukk waaye kenn ku ne ci ñun biir na la ne am na faaxan boo fa àggee foofa foofa la sa dund yem te mbirum Sëriñ Tuubaa amul taxaw kon lu ñépp war a ànd jàppandoo ko liggéey ci Sëriñ xam ngeen ne bi ñuy jub bi ñuy jub sànq rek jëriñ dina ñëw léegi kon gën a leeral lii ñuy junj ndax am na ay taxawaay yu am solo yu mu ci amal ci fan yi waaw jërë ngeen jëf ñoo ngi jéggalu de ndax xam naa léegi imaam yéeg jërëjëf sëñ euh, Moustapha Xuma ñoo ngi jéggalu bu baax a baax lii ñuy def dañ koy defal suñu bopp di leen ko defal xam naa ni sëñ Moustapha dafay raay rek ak di waaraate waaye ñun taalibey sëriñ Touba yi ñun dafa mel ni waaru nañu bu yàgg yàgg bi ñu yàlla booleek ku baax kii mu ñu booleel muy sëriñ tubaax nga xam ni na ko suñu kilifa gu baax nga daan waxe muy sëriñ Fàllu kenn amu ko ñun rek a ko am taalibe bu nekk nag kon xam nga li la war sa digganteeg sëriñ bi yaa nga ca ca yaa ngi koy def waaye barab bi nga xam ne sëriñ bi daf ñu ko baaxee ñun ñëpp day bu ñu sañoon kenn ku nekk ci ñun yaay def lépp kenn du ci def dara ñëpp ngi jéem nag waaye dañoo bëggoon barab bi ku fi ñëw ku ne mën nga dara bu doon ñaar fukki dërëm sax boo fi duggee bala nga fay génne bàyyi ko fi ñoo ngi joxe ay tekkee ay téeméer ak i ñaar téeméer ak i junni ku ne mën na dara te ku xool barab bi ni mu mel nga xam ne semaines yii yëpp ñoo ngi ci ay entretien te mi ngi commencé di bëgg a ami fan ñuy ñaan rek jullit bu ne war nga xam li la war ci sa diggante ak ci sa néeg rawatina sa diggante ak néegu yàlla te fii néegu yàlla la te ku ne mën na dara ay ticket téeméer a ngi fi ay ticket ñaar téeméer ak i junni ku amul mënul junni mën nga ñaar téeméer ku mënul ñaar téeméer mën nga téeméer xam ne fii nga toog dañ ko war a defar li la téem dañ ko war a fay muy courant muy lu seddal muy li ñi fiy liggéey te am aq yoo xam ne bii dox na suñu digganteeg ñoom kon daray sëriñ bi du jóge Touba di ñëw fii nañ ko defe woon ànd ak sëriñ bi ba lii taxaw nañ ko def ba lii barab bi laaj ci ay entretien ñu def ko maa ngi ci soññ sama bopp di leen ci soññ kersa gu rëy lañuy am taxaw fii di ko wax ndax bu ñu sañoon ñooy def lépp te ñoo ngi jéem waaye dañ cee yéene taalibe yépp ñoo ngi ci nag am na ñoo xam ni booba ba léegi bawuñu ñoo ngi ci ànd ko ak ñun te li ñu bëggal suñu bopp la ñu bëggal ñëpp mooy am ngërëmul sëriñ Touba te di ko liggéeyal ba bañ fi jóge loolu daal moo doon wax ji ñoo ngi jéggulu ñëpp di wax salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. jërëjëf jëwriñ kon ñun mbokk taalibe yi ñëpp ñoo ko déggandoo moom bu waxee day mel ne. Cheikh Mouhamadul Muntaxa moo wax ndax moo fi yar kàddoom moo fi ndawam mooy ay tànkam mooy ay bëtam mooy ay noppam kon programme bi niñ leen ko waxee woon ci weeru koor yëpp bis bu ne nañ ko daan amale ci at yi jàll diggante tisbaar ak takkusaan bis bu set dana am waxtaan diggante imaam Serigne Issa Gueye ak imaam Serigne Cheikh Awa Balla Gueye gaawu ak dimaas danañ yaatal waxtaan yi woo ci yeneeni boroomi xam-xam ànd kook ñoom ci mbooleem gaaw yi ak dimaas yi yi am ci biir weeru koor wi ginnaaw takkusaan ba ba ñuy waaj a dog njàngum xasida mi diggante fulk bi ak kuréel yi ñoo koy ànd bis bi nga xam ne it daanañ ko amal invité ci mbooleem kilifa yi ne ci capital bi muy ambassade yi ak boroom xam-xam yi ak kilifa yi diine yi ak kilifa yi ci yoon wi bis boobu it jëwriñ Alaaji Mbàkke yu sàkkan na ko na ko daan amale danañ ko ci amalaat bi weeru koor mi iftaar boobu àndandoo gën cee wane Sëriñ waaye àndandoo ak ñoom it dog ngir wan ne leen ne barab bi ñoom it seen barab la léegi du xadar ga bañ ci àggee it dañ ko daan dundalee insha allahu noonu lañ koy dundalee kon loolu mooy programme bi nga xam ne mooy programme mu bi ndogu ko ciy amal bis bu set te ay junni junni nit di fi doge programme boobu it nam daan amee bit ba day yokku waaye du wàññi ko nañ ko daan taxawee ci ndigalu Alaaji Mbàkke yu taxawaay boobe it jëlaat nañ ko fas yéenee koo defee nu kawe nañ ko daan defee biñ demee ba fukk fan yu mujjee muy naafil yooyu nga xam ne moom lañu amal ci mujj guddi gi muy xëyaamu leel yi moom it nañ ko daan amalee noonu lañ ko ci amalee insha allahu rabbi naafil gi nga xam ne nag moom la ñuy amal ci ginnaaw bi ñu jullee ba noppi moom it Cheikh Abou Baraka bi ñu ko daan àndal it insha allahu moo koy taxawee ci ndigalu Cheikh Mamadou Muntaxa kon loolu mooy programme bi nga xam ne moom lañuy amal ci diiru weeru koor bi wasalaamualeykum wa rahmatullah